ki xew actuellement moom actualité actualité Moi, ki lay woo ay appel absence yu bari doo wuyu cent cent ñaata cent quarante appel absence doo jël jëlal ki lay woo wuyu ko téeméeri attaque lu teg ma ngi lay woo wuyul appel bi wuyu ko يا مصر الإنس والجن إلي رسول الله إليكم أجمع لا يلاي أيام شر الإنس والجن إلي رسول الله إليكم